sir wala sœur wala sœur wala sir. sir sir sir la wala. waaw c'est monsieur. ah boobu nga jël. mais lan mooy sa tur dëgg Malick Kane. ok donc yëkkatil yëkkatil micro bi euh, Malick merci d'être là. ok euh, euh, pour ñu parce que voilà ñii xam nañ la ñu bëri itam mënuñu def kanam ci sa tur et pourtant. Euh, euh, série bii di Pod et Marichou à chaque fois muy jàll y a même des gens qui n'attendent que générique bi ndax way bi dafa neex écoutons avant ñuy waxtaan ak moom mi nga xamante ni moo ko def muy Sir Malick dafa dugg xol quand même euh, dañu koy dégg ci générique Pod et Marichou ki ko woyee ngi nii ci plateau bi di Sir Malick merci d'être là ñu ngi lay nuyu. non maa leen di remercier et puis. du nuyu du nuyu téléspectateur TFM yëpp ak fu ñu mënti nekk si àdduna bi et bon Sir Malik mi nii si. voilà bi mooy sama première émission télé en plus. ma sa première émission télé. waaw ah bu ñu la jigadi. amiin ah, amiin yàlla na fi jógee carrière bi explosé. Euh, juste raconte-nous euh, yow ak way naka nga ci duggee yaa ngi ci depuis kañ et comment est née cette chanson ba ñëpp xam ko. au fait yàgg na ça fait depuis man ba may xale ba léegi. dama dama mës a bëgg musique au fait. après mën naa ne 2011 laa si dugg carrément mais ba may nekk xale Michael Jackson daa doon seetaan benn jour dama ñëw rek fekk sama waa ñu ngi teg cassette vidéo première ah, fois ba ma koy gis sa cuir bi jox na ma Michael Jackson pireweer bi moom nga sotti clip bi bu ko solaata ah. comme tey la sa première télé dama lay dolli rek en tant màggatu télé artistes yi ñuy invité yëpp yëre bi ah, euh, boo demee States États-Unis da ngay gis ñoom bu ñuy def seen plateau télé en général dañuy sol même tenue bi la ñuy sol. mais pourquoi pourquoi ça. mais loolu yàgg na du tey de peut-être choix la. xam nga mun naa leen waatal ni xewul fi mu ne kii ngeen bëgg mu daganal lii dama koy dolli. dama koy dolli gis ngeen yéen. gis ngeen yéen Sénégal il faut ngeen arrêté ak seen yi dem ba gisee barki dem boo njaay clipam la sol yéreem simisu wulu euh, tam boobu pare ñëwee ko yeewu leen piroweeram bi boo demee benn la ci yor toog ci télé bi naan ma xam nga state gis nga man daa. nañu woo ex nañu woo ex. il en avait parlé une <laughs> xam nga artistes yooyu ñoom lu ñuy def mënuma wax la moo nekk seen xel <laughs> loolu. mais yéen daal topp ngeen mouvance bi daal. exactement point. et puis jàmbur dafa xew et puis choix la rek choix la choix ah, la choix la non non dañ lay dañ lay mbalak dañ lay mbalak c'est ça mm-hmm. euh, Michael Jackson bi. Mm-hmm. bàyyi leen jàmm. donc. Euh, yéen a ngi yéen a <laughs> <laughs> waaw ok donc ci salle bi laa tëdd rek. ok gis euh, mooy clip bu thriller moo doon daw. ah oui thriller après mu impressionné ma ma daw mais ça m'a impressionné m'a marqué. Mhm. après noonu laa commencé di ko suivre di ko suivre mais gis engouement bu mu siy def énergie bu mu siy def ak nu mu gëmee boppam quoi ah, donc. mu euh, nekk source d'inspiration ci donc identifié wu sama bopp si moom et puis voir tamit. depuis lors que ku la déglu ku la ku la déglu woy nii quand tu woyu Michael Jackson yu sedd hmm. euh, dafa mel ni da ngeen nuroo timbre ay timbre vocal waaw parce que dama daan tëju si nekk di ko woy matin midi soir di woy ay son ay c'est vrai que woyam bi dafa nuroog boobu mu naan yóoro naa le long ah Tu as, tu as un peu chanté comme ça. Ouais, on peut on peut dire on peut dire am na ay euh, <laughs> assonances. <laughs> lii laa ci xam Yora notre lon xaw ma yoro naaru lon noonu laa ko wéy je te jure ah c'est ça, ça ressemble à ça I'm still all alone How could this be You don't help with me You never say goodbye Something that Did have to go? mais dama I did love slip away? Something whispers in my head and eh? say you're not alone. I am here with you, yeah. throw you I am here to stay. You do not lii mooy talent en fait. yow siir nga. lii la ñu soxla soxla ci artiste. alors euh, sans yow euh, video baa ngi doog a génn ñu gën ko miin grâce ak série euh, Pod et Marichou ak saison 4 naka la woy bii ñëwee bii nii titre bii nii. bi en fait man en général à chaque fois que j'ai une copine. Mhm. Euh, dama am c'est-à-dire c'est musique. comprendre nga si laay nekk matin midi soir donc en général je ne suis pas disponible.

donc euh, noonu laa toogee ci studio bi parole di ñëw ma koy dugal noonu noonu noonu. et comment la la atterrir ci générique bu série dafa am benn euh, waaye damay fàtte tur bi mais chorale lay def dama ko woon sama ay son son bu mu déglu ne ma yow sa son yëpp mën na daw ci série si laa am sama benn xarit Chérif Aïdara ma koy nuyu de de passage dina ma boole ak waa Néegu Rap waa Néegu Rap ba ñu déglu affaire bi automatiquement dañ ko yónnee waa. Marodi si saa si ñoom mixé guñu sax son bi ñoom dugal nañ ko parce qu'ils ont trop kiffé et puis ba mu génnee en image a euh, donné quoi donc. Euh, mën la duggee ci séeréer. c'est un très beau titre. non c'est magnifique et euh, bi presque ñëpp xam nañ ko. mais mhm. sànq bu ngay toog dañ naan Sir Malick kan la lan moo waral mhm. loolu nga bàyyi way bi di dem après nga jël temps avant ngay def clip bi muy soog a génn. au fait à la base man euh, man mësuma xam xaw ma sax waa Marodi xaw ma fa kenn. Mhm. waa négo rap laa xamante donc à la base ñoom. Euh, bon comme que à la base xaalis mënul am ak affaire yooyu mën na leen léegi nañ promotionné Sir Malik pour gars yi commencé ma xam sama Instagram et cetera mais par la suite ça ne pas fait. Mm-hmm. donc euh, mais anyway donc instant bi nii son bi si benn label laa ko génnee mooy Jifa Universal mm-hmm. Music léegi foofu laa nekk. fa laay commencé sama carrière man soog a commencé sama carrière actuellement depuis que ma commencé musique ba tey mm-hmm. c'est parti. C'est quoi les projets comme yaa ngi soog a commencer réellement avant passion nga doon demee. il y a beaucoup de surprises mais d'abord damay promotionner clip bi. après li si kanam promotion bi jàll na du ñëw nga teef. <laughs> a génn. boobu xam naa day génne ngeen fàtte son mm. moom ah, c'est sûr ah, incha baax na. d'accord naka ngay liggéeyee c'est toi qui écris. yaay composé waaw maman bind son bi son bi maman bind affaire bi trouver mélodie yi.

mais sant yàlla parce que artiste dans l'âme c'est pas que euh, déglu Michael Jackson moo la jox euh, peut-être yenn inspiration yu noonu en terme de de way euh, ci ci yeneen lan lan ak lan ngay laalaat. au fait man ci lépp laa ma mën naa toog nii gis euh, ma dégg benn xaar ne mbéy rek mu jox ma affaire bu bëri. <laughs> waaw léegi mbéy <laughs> ah, loolu jikoy artiste la. c'est c'est euh, la pour nga comprendre. Mm. genre l'inspiration vient de partout. même ci plateau bi nii. Mm. mën nga toog sax ne ma ubbil rek mu nekk titre son. xam nga loolu dina nekk lu nekk lu nekk lu nekk si lépp ngay inspiré amul limite. bés boo toogee ne man ci lii rek laa inspiré wu mooy da nga tënk sa bopp comprendre nga te musique dafa doon lu nga xam ne dafa infini depuis kañ musique mi ngi am ba tey boobu ñu ngi wax musique musique musique boo xoolee loolu yàlla da siy wane boppam xam nga yàlla booy wàññi si wàññi daf ci wane boppam boo ne un deux trois adduna bi yëpp mën nañ compter ba abadan du mës a jeex ah. donc noonu la noonu la yaa ngi wax ni que um, da nga way way yu bëri après nga tànn ci bi yónnee ko waa Pod et Marichou est-ce que mën nañ xam est-ce que danga am instant yi way yu bëri yoo xamante ni ñu ngi tëdd di xaar ak si yan ngay way fréquemment en fait euh, man ci lépp laay way damay woy ci social ci mais surtout love mooy sama point fort donc même quand je chante pour affaire si société ak yooyu je préfère lu positif quoi en général donc du ma wooye ci je préfère apporter des solutions sur samay chansons ak yooyu mm. nga xamee boo ma déggee yow boo même bu fekkente ne tu es triste ak yooyu di nga sa bi dina dum quoi xaw a def xaw a dàmp xol bi ak kaari day si actuellement fan la yaa ngi tëgg euh, yaa ngi def ay prestation yaa ngi euh, ci internet bi Facebook ñaa ñi ñaa ñaa voilà fu mën a consommer donc euh, instant bi nii boo la ñëwee sama Instagram Sir Malick abonné déjà di ngeen commencé am programme bi foofu noonu léegi maa ngi si label bu ma la waxoon tam ki Chief Universal produit par Wiz sa manager la àndal maa ngi koy digal de passage Tapa donc euh, numéro baa ngi si YouTube bi boo leen duggee clip bi ba mu génnee ci suuf def nañ si numéro donc képp ku ñu bëgg a contacter di ñu am foofu et puis si Instagram ak YouTube dinañ commencé balancer ay information pour wax la mooy programme bi fan ak fan la ñuy dem lu ñuy def ak yooyu mais d'abord clip bi parce que ñëpp comme que ñëpp a bëggoon xam Kamé Sio mhm. Malick donc euh, loolu mooy euh, objectif bi en tout cas on te souhaite bonne chance hein je mu ngi nii tey c'est sa première télé il mhm. nous présente euh, vidéo bi nga xamante ni moom la tuddee sans yow tu restes avec nous léegi ñu jeexal compte à rebours bi commencé na 10h52 puisque bu 11 jotee dañ leen di bàyyeek Evatra mu gunge leen ci wareef en attendant